Je bi saluer ñi am initiative bi les jeunes de Boukhatoul Je suis ci tuddee Moustapha Seck et Bass tous les jeunes yëpp initiative boo c'est une initiative citoyenne parce que tit euh, président Macky Sall son excellence il a donné l'exemple pour wan sénégalais yi dañu war a solidaire te dafa am lu am solo tey boo nga ay bakkan Ding si am jaamu yalla ding si amit aussi vraiment lo xamni ne way bu rafet la donc bu ay jeune amé initiative bi def ko man lima don xaar moy que jeune yi ñëw en masse surtout les associations parce que rôle association yi moy ñu ñëw taxawu askan wi donc li sama cëru citoyen la warna ko mëna def pour dimbali ñi nga xamni dañu teud ci hôpitaux yi té soxla deret mais nak di rafetlu vraiment ñi ko def parce que tay wan nañ ni c'est des leaders politiques ay jeunes lañ mais buñ ñaxaw nak ni ñom politique rek moy seen métier mais dañ ko def parce que dañu xamni kat ñom am nañ lo xamni ni la ci diggante ak askan wi kon ñom vraiment dañuy saluer les jeunes de la l'APR yi nga xamni ne ñoo nekk au niveau de de Sam euh, particulièrement à Bokatoul Mubarak en tant que responsable politique à travers l'internet ngay mën des actions de parti ñu gis la nga mën di poser euh, ko mën a acte voilà très bien notre démarche politique rime avec le social c'est-à-dire que nous sommes directive parti parrainer des des militants mais cela veut dire quoi mais si nous devons comme cadre humain, en masse participer ci li nga nous développement parce que nous santé tey ñun ñoo waroon dem si hôpitaux yi di leen di leen fekki di joxe deret yi ñoom ñoo waroon saturé naan du ma duñ leen jël mais tey li ñu remarqué mooy tey ñi nga xam ne ñoo nekk banque de sang ñoom ñooy wër sax nit ñi naan leen ñëw leen maye deret loolu nag Sénégal dañ ci war a poser question ñoom il sont conscients li nga xam ne tey ñoom la ñuy jafante parce que Sénégal boo xoolee accident yi bari na jigéen yi bi ñuy accoucher ni ñuy ñàkk deret bari na kon ñun nag ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu wér may nañu tey ñu nekk en bonne santé ñun ñoo war a jéem a def nag ci lu ñu am te aussi ragal giñ ci ragal amu ci maye deret taxul ñu jox la feebar wala ñu wax la ni la da ngaa feebar wala yu mel noonu danga nga si am tiyaaba di nga si am leneen ñun boo bëggee dégg dëgg mooy que tey la jeunesse républicaine bi nga xam ni tey ñoo fi nekk jàpp nañ ni politique rek nekkul loo xam ni wuti militant la wala noonu lii politique la boo xam ni politique sociale la donc parce que ñun dañu war a joxe la bon exemple. jërëjëf ginnaaw bi ma la nuyoo nuyoo mbooleem kuy dégg sunu kàddu euh, tey dañu fee ñëw ci fànn yu bare bari fànn bi ci jiitu mooy loolu nga wax mooy dimbalante te yàlla sunu borom subhaanahu wa taala dañu wax ci alquraanul karim wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal hudwaan te ku nekk xam na ne dimbalante ba dimbalante jeex dimbalante ci wàllu wér-gu-yaram moom mooy bi ci gën ndax nit ki boo amul wér-gu-yaram doom tala jaamu yàlla ba tax na lu mel nii buñ koy def ngir dimbali ñi nga xamante ne si xëy na tey danañ koy tëwoo ndax wal xiyaasu bi la ëllëg mën naa doon man ndax doomu aadama man ak mën a di ñoo ànd mën ngaa xëy yàlla suñu borom teg la nattoom ak ci fu mu ko mën a jaarale ak ci rawatina suñu soxna yi nga xamante ne si yàlla day defal mën naa dogal ñuy wasin yu mel noonu yëpp saa bu leen dalee comme ci dal ku nekk da nga yitte woo deret te loolu amul ci benn pharmacie buñ koy jaayee wala ci marché wala ci kii doomu aadama rek moo ko mën a may moroomu doomu aadamaam kon loolu bokk na ci li tax ñu ñëw ngir jaamu ci yàlla ngir dimbalante ci sunuy morom ndax ni ma ko waxee samay biir kàddu ëllëg mën na maa dal ma yittewoo ko mën naa dal sama mbokk ma yittewoo ko amul benn doomu aadama buy dox ci kaw suuf ne maanaam doo woo may deret doo yittewoo deret moo xam ci yow la moo xam muy sa mbokk mu la jege moo xam muy sa xarit moo xam muy sa àndandoo kon képp kenn kuy dox ci kaw suuf rek loolu noonu bis dana ñëw mu arrivé la kon lu mel noonu war naa tax fépp fu ñu gisatee lu mel nii ñu daw jëm ca def ca ñun ñëpp suñu contribution loolu mooy waral benn bi tax ma ñëw fi beneen bi ci def mooy ñii nga xamee yàlla dogal na ñoom ñu di ko organiser muy si waa sa sa mboqatul mubaarak samay xarit ñoom ñëpp samay xarit lañu mo sëñ Moussa Lo Bachir Mboub cheikh mbay seigne moussa sek jannatu ñom ñëpp dañu nek samay xarit yo xamante ci si bok ci fenn fo xamante ci si fu ñuy soti ci li nga xamante moy lañu rote moy alliance pour la république du parti APR kon yoy yep bu dajé moy li nga xamante ci si moy yeg yeg yi ma am ba tax ma ñew ci waye bima ci eppal importance dal moy bima ñëk wax muy walu dimbalante ndax nek na lo xamante ci si ku xamone li ci nek ci yiw ku xamone li ci nek ci lu bax ku xamone li ci nek ci loo xamante bu la ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala fayee ku ko xamoon ku ne di ko dàkk fu mu nekk fu ne diirub ñettiweer yi ñu wax ne sax moom lañ ko war a def doo ko xaar dangay def bis bu yàlla sàkk nga dem def ko bu la ko sëg wér maye kon nag ma ci ñaaxaat sama bopp di ci ñaaxaat population di ci ñaaxaat askanu Sénégal lu mel nii ñu faral di ko bari te di ci participer fu ñu ko dégg fu ne ñu dem def ca suñ lu baax ndax ni sëñ bi wootee ñuy dem di ca def sëñ bi de tey jii bu fekkonte ne ay jamonoom lu mel nii fekk na ko fi man de am naa yaqin na dana bokk ci ñi nga xamante ni si tey ñoom danañ ko soññee ngir taalibe bu ci nekk di ñëw di ko ci fi def ndax nag ci dëkkub Sëriñ Tuubaa la nekk bu fekkoon ne li ñuy def nii euh, yàlla suñu borom reconnaître ko sëñ bi ko kon fu koy defee fu ne sëñ bi moo koy njëkkatere kon nag loolu jaadu na fu ñu koy defee fu ne kuy taalibe Serigne Touba kuy jullit waaye kuy doomu aadama rek ndax diggante doomu aadama ak moroom doomu aadamaam di ñu war a seq mooy jàmm ak dimbalante. xanaa ginnaaw bu ñu sant yàlla remercier également population Bokhatul Moubarak remercier chef de village bi Saliou jeng ak tous ces chefs de quartier. remercier association bi remercier ICP yi nga xam ñoo nekk ci ñaari gox ñaari poste de santé yi nekk ci gox bi remercier également waa hôpital Matlaboul Fawzeyni ci seen déplacement bi déplacé wu ñëw fii. pour suñu journée don de sang à consultation gratuite bi ñuy def li ñuy également ñi nga fait IGP relais nous ba des ñu ñaan ak nous gox yi ñu ñaan fait ñu gens, sensibiliser askan bi di waxtaan ak ndaw ñi di waxtaan ak ñi ci maye ndax ne taxul mu beaucoup ci sen bop bu baax xamuñu ko bu baaxa baaxa baax nit ki def lu mu xamul ñaara du ko yomb yi daanaka li ñu fiy def ay journée don de sang bariwul kon ñi nga xam ñoo fi nekk di yëngu nekk ay acteur de santé muy bàjjanu gox yi muy relais yi muy ICP yi ñoom lañuy ñuy sant di leen ñaan également ñu gën a sensibiliser askan bi ci lan mooy maye deret lan mooy njariñu maye deret loolu daal ñi ngi koy ñi ngi appel bi bu baax a baax baax di ñaan ñu jàppale ñu si pour beneen yoon bu ñu ko defee ñu mën a am maanaam li ñu soxla ci maye deret parce que ñun objectif bi ñu visé woon mooy 250 postes xam naa amuñu ko bu ko jegee amuñu ko.

ñu def ay don de sang acte bu noble la acte la boo xam ne si nit ñi mën nañ ci dimbalante ndax doomu adama bu fekkee am na ordonnance mënoo ko dimbali ci ordonnance tamit boo mayee dara rek mën nga ko sobee loolu lépp acte la boo xam si ni président lancé woon na appel bu yàgg yàgg yàgg suñu tour dafay doog agsi mais duñu yàq dara ci suñu parrainage parce ñu démb lañ jot suñu ay fiche te fiche yi moom yaakaar naa rempli ko pose pas am na benn équipe de jeunes bu fa nekk boo xam ne si nii ña ngay parrainé ñun ñu nekk fii di def suñu journée don de sang ak consultation gratuite yaakaar naa ni ñaari activité yu mën a ànd la ndax ku jaar fii bu fekkee indaale nga sa pièce danañ la wax nga jaar ci marché ba am na ñu fa nekk ñoo xam ne si nii danañ jël sa pièce jël la comme pare loolu amut lum ñu yàqal yaakaar naa au contraire dañu dimbali parce que c'est une pierre deux coups. waaw dañuy nuyu ñëpp aussi tamit di nuyu population bi ñu fekk si muy population di wax ne lii rek mooy yëf yi aussi tamit ku ne xam na ne rupture ni mu manqué ci nga xam ne mooy banque de sang yi deret manqué ñu gis suñu président Macky Sall mu génn lancé na ñëpp nañ mayee ji deret ñu gis département yëpp ak yëpp di ko organiser tey waa Samm organiser lii di suñuy càmmiñ di lépp ñun tamit ñu ñëw assister leen ànd ak ñoom jour bis bi ci don de sang bi mooy waraloon suñuy tànk tey ñoo ñëw fii xam ne mooy Samm Boukhatoul Moubarak ñu def lu am solo nag parce que dañoo organiser don de sang en plus dañoo organiser conseil consultation gratuite te ku ne xam na ni dunduk doomu aadama wér moo ci ëpp solo ndax boo wérul doo man lenn li kon ñoom bu ñu jógee seen initiative ñu jug ko jëmale ko ci sante loolu dañuy sant yàlla aussi tamit dinañ leen ci gën di ñaax te fas yéene ko ànd ak ñoom loolu moo waraloon suñu tànk tey ñu ñëw fii nga xam ne mooy Sam Bokhatal Moubarak waaye yaakaar naa dinañ ko mën a boole parce que boo xoolee lii rek boo xoolee ñi fi nekk tey jàpp naa duñu jeunesse féminine bi boo xoolee ñi fi nekk tey jàpp naa duñu APR dañu koo xaaj ñi dem ci pàcc bi ñi dem ci ngi ci doo descent bi aussi tamit ñi war a ne ci terrain bi ñi ngi ci terrain bi te jàpp naa ne ki nga xam si ne dafa xaw a jagat tey nga faj ko ba mu wér wala doomam jagat tey amul lu ko yóbbu hôpital nga ñëw organiser consultation gratuite nga fajal ko doomam tey ji kooku naa kanaa soo demee ci moom na ko paraneel ma sama candidat muy président Macky a yombal li ngay def que ñun tamit dañoo bëgg a veille ci ba pare dooga dem sàkku ci moo tax moo tax dafa yaakaar naa ni consultation bi am na njariñ don de bi am na njariñ te teewul ñu ci terrain bi tamit ñu ngi ci terrain bi